c'est normal parce que des fois la santé te joue des tours yoo xam ne faal il faut que nga faju ji ay nit kese lañ dañuy wàllu dañuy xot bu zaman faju delluwaat urgence léegi sa rentre chez moi alhamdulilahi rabbil alamin léegi la combat remobilisation général dafay jot remobilisation général l'heure du don de soi a sonné moo tax ngeen gis ay yaanaamaar ak gala door see Sénégal ñëpp jóg taxaw maanaam ñi mën a xeex sans politiciens yi jóg nañ dugg ci xeex bi merci beaucoup malgré que man maa leen doon yuuxu yuuxu naa leen ba sonn ne leen fexe leen ba bu leen dugg ci xeex bi nañu bàyyi booy passé fi demal seen bopp pour ëllëg ñoom ñu changel seen bopp dirigel seen bopp affaire yi mais gis ngeen état nu mu defak ak tax na nag yéen passif. ñun boo leen ne on ne vous soutient pas boo leen yaakaaree ne li leen dal méttiwuñu li dal ay gars vous vous trompez boo leen gisee ñëpp wër leen Sonko moom c'est mosul dem élection gagné allez vérifier l'histoire même 2019 en coalition la demoon xam nga tam histoire dafa ñu fi fekk moo tax des fois am na fu ñuy Car keroog ma ñëw ne leen Pape Alé Niang li mu wax. j'ai été clair et li mu wax mais est-ce que man li Pape Alé Niang wax est-ce que man loolu laa sentir gars remobilisation générale jot na l'heure du don de soi a sonné léegi nag góor yi lañ soxla sur le terrain vingt 24 boo gisee tey seen manifestation bi teelu ma ci wax démb boo gisee teelu ma ci wax parce que ñun xam nañu on rentre jamais sur des détails man moom ay détails yi du ma ci dugg vingt 24 ñi mën a ànd ak Sonko xam nañ ñu mënta ànd ak Sonko xam nañ en tout cas dinañ tëggaat coalition par force par force. topp yeeg ñëpp on va sur la table avant Sonko di leen defal surprise génn àndul ak Bassirou Diomaye Faye ngeen ne lu xew génn àndul ak Abass ngeen ne lu xew. génn àndul ak génn àndul ak génn àndul ak ngeen ne lu xew bugguñu bugguñu dara bett leen. bëgguñu dara bett leen est-ce que vous nous comprenez moo tax leen naan coalition day amaat Sonko gauche droite bëgguñu dara bett leen tay manif bi yeen ñi nekk Dakar yeen place de l'obélix yeen yeen la jeunesse yeen mënu leen Macky Sall nday momu Sénégal papa momuko ko papa momuko ko faral sen astaghfirullah way bu leen ma taxal saga astaghfirullah seen baay moomu ko ngeen bëgg na tay ñooñu Macky Sall day tok ni kenn dootu ko déranger yeen chaque fois le vendredi de la liberté là ngeen bëgg a ni Macky Sall non non non sama gars d'accord ma kër sen way bi ngeen ni way lu mu leen doon wax gis ngeen xalé yi ngeen nawetaan def ci xaalis bu dul jeex fakk na xalé dañuy faté Sonko far nak fa ngeen dekkilee xale ci Ousmane Sonko félicitations la jeunesse tay waa Y'en mar ñu ngi sur le terrain ñom buñ ne dañuy manifester dañuy manifester bokku ñok ñom gi Marissa Sagna politiciens yoy di ñew di karab karab Clé d'or bu leen ne day dem day dem yéen tam la jeunesse couverture la ñuy soxla booy fa ngeen jege foofu fa ngeen jege place de l'Obélisque pour couverture parce que am na ñoo xam ne bokk ñoo ñi nga xam ne ñooy wër di yuuxu Sonko Sonko ay Guy Marius Sagna euh, ay Déthié Fall da ngay convoqué bu ñu la ko interdire nga ñëw jaar faak sa oto dem déedéet am na ñoo xam moom buñ fa yeggee dinañ leen def si car auto police mais dañ fay yegg moo tax je vous Après la prière, il y a la jeunesse. Sortez et appuyez. Sortez et mettez des appuis feu. tey dinañ que Macky Sall si beneen cycle combat Nous ko faire ci cycle combat Ni, Ni ni cycle combat il va Macky Sall il va se référer à nous par force Macky Sall il va se référer à la République par force Macky Sall il va se référer à la nation sans sa femme par force fa lañ toll nous ragal jeex na tiit tappeti daw nañ waaw kon man sama verre yi dama ko fàtte hôpital booy sonn naa de kon catastrophe tiit ak ragal yëpp nañ ko baax la jeunesse soyez uni génn leen def bagage mu jeex lii ay xeexu jour la ay xeexu jour ñu libéré Sonko ay xeexu jour ñu ne leen Sonko day bokk élection mais day dem si ko coalition kooku moom foog ñu nangu ko tam ñu ñëpp ay xeexu jour yan France moo leen di wax ñun diaspora bi suba samedi lu ne foog nañ ne ñu ngi koy def far heureusement suñu grand yëpp ñëw nañ ay ñoom grand Dabakh grand ñoom Cissé te ñu nekk États-Unis ñoom ñëpp ñu ngi fi c'est les combattants ñooñu c'est les vrais combattants et les vrais financiers du moo tax combat bi tam félicitation diaspora ndax gis naa ne gars yi ñu ngi dugal affaire yi weex tàll Sénégal lu mu leen di ñaan mooy nañ ñëpp présent le don du soir a sonné moment yi na ñëpp génn présent xam nga lu ñuy ñaan le maximum le maximum de monde maximum de monde la ñuy ñaan gaay donc di so jot na gaay yi dañuy genn xex ak Macky Sall Pastef dañ leen réduire ah fexé nañ ba tass leen ku nekk di daw kenn nangootul bok ci yeen ñun dinañ ñew jël combat bi amen xeex la ñëpp ndax ñun ñëpp Sonko la ñuy jàppale partisan yaa fa ëpp man chaque jour ma jot ay partisan yi bari gars ñun nag lu ñu leen mën a wutal leen financement yéen la jeunesse ngeen xeex loolu lañ leen mën a ñoom jiji ñu ngi ci loolu ñoom kaayi ñu ngi ci loolu ñoom grand da baax ñu ngi ci loolu man sama ñi ma yor fu ñu leen jàppee dinaa leen jëli man dama am ay spécialité ma ko ñom grand tabax ak ñooñu ñun ay ancien militaire la kon mënu ñoo bokk ak ñi di xex bokul mu on a nos ay ancien militaire la ñi xex lo pragmatique donc kenn duñu defal calcul ak budget li la ñi xexé déedéet on sa bagarre on prépare nos matériel après on sort sur le terrain c'est simple ba tax ma leen ni ñaan ku mën di duggal ci grand tabax wala si jiji wala feneen ak feneen ya xam mais man booy blessé won nek prison amna ñu ñu bàyyi amna ño xam bayu ñu len batay ñu ngi prison kon sen jabar yi ñu ngi ci location parce que man femme yooyu may sonal ak jabar googu lay gérer samay combattants on les gère d'une autre manière ak benen xaliss ndax li ñuy dépenser xajul ci li ñuy dépenser la moitié mënu mako jot kon on passe à autre chose lool buñ ci sax wax xaliss fenen lay jóge mais légui pour soutenir famille yi man toujours lool lay joy famille famille ñi blessé baye jamur yi ñu tecc ci kasso bi nawet bi mu ngi ni téléphone leen ma ngir yalla ma paas leen direct ku ngeen ni yónnee location mbokk njabotam ngeen jàppale ko ndax koku seen baye ñu ngi leen blessé à cause ñun ñi di jàppale Sonko à cause yi ñi gëm Ousmane Sonko man ñooñu lay ñaan ñu jàppale li wa war ñi laay war a suuli xeex koy xex ñu koy financer d'une autre manière par d'autres tunnels par d'autres ondes mais famille des victimes la soutien bi gars yi le maximum loolu moralement dafay tax famille am tuuti courage ku ci mën jàpp ci 06 05 59 96 00 man boo leen ma woowee rek direct su ma leen wóoloo nay leer de am na ñoo xam woo nañ ma pour yónnee ma xaalis ngeen baal ma.